jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo <laughs> waaye dama leen ne gis nga 9 kilos loo bëgg as jaar mën nga ko rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lubbu gas maam jaara ndax secret bi ñu taxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii daal di kóor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilos bari na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax loo bëggaas mam jaara rek ku ko am nag d'origine bi nag fee moome vent neuf kilo maam jaara yaa moome vent jigéen ñi ci dul yaa jaara bége saa su ne ñu koy bége Jaf Kambine la le génération bége jinjër bége jinjër mmh, sant leen bége jinjër bége jinjër roytu lu ropir bége jinjër bége saf aleen bu neex néeg bu siis moom mere stress boo koy seet si bett kaa ci gën yow mosal ku ko mos tàkkamtiku variété pël sama dàkkara teraanga pël su laay

wax waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu seetaan ci biir mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali TV del si beneen yoon ci seen jataay bi ñu tudd alxalam ngeen koy am àllarba jot ci waxtu wi tabaarakallah am mbégte lool ci ni ngeen di toppee jataay bi waaye am mbégte lool ci abonnement yeeg aimé yi e am mbégte lool ci partage yeeg participer yi yal na boole nu sàmm boole nu aar ndax noo ko fi bàyyi noo leen moo nu fi bàyyi mbokk yi alxalam mi ngi ci benn téere bu tudd Tuhfa maam Sëriñ Tuubaa bind ko di ci def tawassul bi asmaa'il mufaddalin di ñaan yàlla ci darajay gaa yu baax yooyu ci àqi gaa yu baax yooyu ci ormay gaa yu baax yooyu ndax barke kenn du wax ni barki amut xanaa ko xamut barke lu am la maa la ko wax boo laajee xamis yuusuf ca ba baay ba baayam kataraagee da nga xam ne barki am na yuusuf waxul gaa mbokkam ya fab leenu sagar dóor ko ko daf ne is abu bi xamisi haza ndax xam na ne yërëm boobu am na barke maa la ko wax alayhi salaatu salaam toog na di di waxtaan am ko ko xool xam ne kii sama sama jàllabe ba ca kër ga wax dëgg yàlla moo moo moo moo bii mu sol mu dem jëli jàllabe ba yët ko yonent bi pour bu waxtaanee ba noppi bu duggee këram bu sangoo sol ko di saan saaba yi allahu akbar mosoon naa am benn àndandoo bu ñuy wax nekkoon ca ca ca ca Jurbel xam naa péage bee tax sax waaye bëggoon nañ saa bu jógee jaar fa yàlla xam na ko seeti soxna Ulimatu Njaay waaye xam nga rek tabarkalal yàlla xam doy na waaye Jibril Fall su ma su saana am téléphone bu bees ma am téléphone bu beesut <laughs> su ma ko fa bàyyee di jàppi bala maa ñëw mu dindi pisam def sama bos jël bosam defal ma waaw day sone rek ma xam ne moo ko changé def na ko ñaar ba ñetti yoon bu amee téléphone bu bees bi ma yor bi mu yor gën koo tane day dindi bi ma yor defal ma jël bi ma yor euh, yor yore ko waaw ndeysaan ku baax woon Jibril Fall dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm kon barke lu am solo la barke am na solo de waaye nag du lépp a du ñëpp am barke Cheikh El Hadj Abdoul Aziz wa radi anhu nee nañu dafa mas a toog waxtaan ca mbooloo ma am ku gis ci wetu marché ba grand bu bu rafet bu am yépp mbaxanaak kaalaak ay dàll kooko dem jënd lépp def ko ci mbuus yët ko sëriñ bi sëriñ bi teg ko ci wetam am ku ñëw déey ko ne ko man de damaa am am tudd ginnaaw ëllëg te fi ne yoruma dara lu ma jëndeem xar sëriñ ba jox ko yére ba ne ko demal ca marché ba xëy na kii bu jaree mën nga cee am njëgu xar ah kay mu dem jaay grand mbubb ba am ca njëgu xar waaye am ca leneen lu teg ca njëgu xar ma léegi ndekete ki doon jënd grand mbubb bi encore suñu ab suñu ab la ko doon jënd la ki ko indi bu njëkk ak ki ko jëndaat di ko indiwaat gisante wuñu xamante wuñu kiñ ko jox mu jaay ko it xamul li xew kooka daal di koy delloo si sëriñ bi daal di muuñ daal di sant suñu borom daal di mbokk yi xam ngeen euh, grand mbubb bi fi mu demoon ñu ne ko déedéet si mu ne daa ngént ji woon waaw <laughs> akbar mu ne nekk leen bi ñëpp a ko bokk see fekk ndeysaan xaaj Abdul Aziz ad-Dabbaaxi radiyallaahu taala anhu sëriñ bi ci bind bii nu weesu mi ngi tuggoon ci doom yu góor yi yonent bi ginnaaw bi mu génnee ca ñaari sëtam ya Xasan ak Useyn mi ngi dugg ci darajay doom yu jigéen yi bi jaahi fatima aftim nafsi an kulli ma yajurruni li habsi hmm? waaw mu ne ko ci darajay doomam ji fatima caatam mi nga xam ne aw doget la woon ci moom bu fatima masaana dox day mel ni yonent bay dox su ko masaani seen muy ñëw moom alayhi salaatu salaam mu commencé jekk-jekkal poojam bi ndax bu ñëwee ci lay toog waaw bu Fatima amee kerse yi ñëw fi mu toog mu jóg gàttandu ko teg ko ci tànkam ku fonkoon doom ju jigéen la moom yonent bi ku doom ji jigéen la moom yonent bi daana wax ci hadiis ku yàlla may ñetti doom yu jigéen nga yar leen bu dugal leen néegu sëy te duma woo leen loo defoon yàlla baal na la ko <laughs> allahu akbar kenn ka ne ko ah man de awma sens kon mu ne ko lu xew mu ne ñaar da am waaye sa wax ji tax na de ab yar leen tiim ba baa ñu dugg néegu sëy yonent bi ne ko boobu la baax na kenn ka ne ko ah man kat kii ma sens ndax man kenn rek laa am jenn doom jigéen mu ne ko ba tey baax na waaye yonent bi ko fonkoon doom ju jigéen la doomam ji Fatima nga xam ne keroog ba mu ba mu nekkee ci euh, minitam yu mujj daf ko woo Fatima ñëw ñu ko ah Fatima de tey ngay tàggalu ko sa papa rek Fatima jooy jooy yu métti bi mu toogaatee diir daal di ko waat mu ñëw mu ne ko ah ñi ma bàyyi gannaaw yaa mu njëkk a fekk si Fatima ree ba tàntaam jaaxle euh, sëriñ bi nee na maam Sëriñ Tuubaa Fatima maa ngi lay ñaan ci darajaay Fatima aftim nafsi nga feral sama bakkan bi ah aftim nafsi nga feral sama bakkan bi bakkan day fer a ah, waaw an nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaayi wa in taftimhu yan fatimi waaw ndeysaan eh, borom bur da ko wax al imaamul busayri rahimahullah wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaayi wa in taftimhu yan fatimi waaw bi jaahi fatima aftim nafsi moo tax fi ne weeru koor ñu bari xamuñu ne koor gi dafa ñëw pour jàppale la ba nga mën feral sa feral sa bakkan bi ci ci ataaya yi digg bëccëg ci naan galaas gu dul dakk ah ak yu bare bari ba ci ba ci ba ci toxum waaw yooyu yëpp koor day ñëw feral ci bakkanu nit ki moom mu ne bi jaahi fatima aftim nafsi an kulli maa yajuruni li habsi waaw ci lépp loo xam ne mën naa jural bakkan ñu téye ko foo xam ne du fa jóge loole maa ngi lay ñaan nga feral ci sama bakkan ñu ne ko waaw ñëpp ñu ne amin mu ne wa bi ruqyatin wa zeynab ak fini isan wa bi wa zeynab muy ñaareelu doom ak ñetteelu doom Roqiya ak Zeynab mayoon nañu Ousmane kenn ca ñoom mu faatu ñu may ko ka ca des mu faatu yonent ba ne ko ah, damaa jeexal de waaye su ma dese woon keneen may la ndax man gëmuma aada gis nga addis boobu jar war naa mokk ci suñ di suñ biir soxna as tuddi ko addis boobu daa war a mokk mooy da ko may doom ju jigéen mu faatu mu may ko rakk ja mu faatu mu ne ko su ma dese woon keneen may la gis nga addis bu su ma keneen may la ñun kuñ may ba faatoo duñ la mayaat wala buñ la may bu faatoo ñu mayaat la ñu faatu duñ la mayaat ñu day wax ne eh, aw jiwu kenn du ko def ci genn tooba ay wàjji la loolu di su ko wax roq Roqaya ak Zeynab mu ne maa ngi lay ñaan ci darajay Roqayatu di la ñaan ci darajay zeynab ik fii nii yàlla na nga ma fegal atarda wal xijaaba kulla zamani atard mooy ku yàlla jox carton rouge génn la ci diina ji allahu akbar atard noonu ñu def ab joueur ci terrain bi jox ko carton rouge mu génn terrain bi dem ca vestiaire ya togg di seetaan loolu am na ñoo xam ne ci àdduna sunu boroom daf leen koy def def leen jox leen carton rouge hmm? maa la ko wax ay waaj yàlla bu mu nu ko def waaye sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla bu mu nu ko def ci daraja yi Roqiyatu ci daraja yi Zeynab ñun tam bu nu koy bu nu koy jàng noo nga ñaal suñu bopp ak tarde muy dàq googu yàlla yi dàq lenn ci nit ñi yàlla buñ ca bokk wal xijaab al xijaab mooy kiiraay maanaam nit koo xam ne kii yàlla dafa doxale digganteeg moom ba du ko gis summa innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuun am na ñoo xam ne kiiraay yooyu mooy dox si digganteeg seen borom ba duñu ko gis mu ne yàlla maa ngi lay ñaan ñaar yi kulla zaman jamono ju nekk daal yàlla buñ ñu dàq yàlla buñ ñu yiiru amin waaw mu ne nag mu jeexale ko nag wa ummani dunya wa oxra bil karam bi ummi kulthumin wa jannibin niqam <laughs> seeti soxna as di ko yaa ne xasida gi daa neex bila laay yéen a yey umma nii yàlla na nga ma yaayale li ñuy wax ndeyale yàlla na nga ma ndeyale ummu kalthum sëriñ bi nee na sunu borom maa ngi lay ñaan nga ndeyale mu ummu kalthum hmm? waaw waaw umma nii dunya wa oxra bil karam bi ummi kulthumin waaw maa ngi lay ñaan nga ndayele ma ak alaaxira te terale ma ko bi ummi kulsum cey waaw maa ngi lay ñaan nga ndayele ma ummi kulsum ah mbokk yi ndekete ndayele jigéen ñee ko yàq ndekete ndayele jigéen ñoo ko commercialisé waaye ndekete ndayele démb la woon allahu akbar wa ummani dunyaa wa uxraa bil karam bi ummi kulthoomin waaw ndekete ndeye la waaw parce que jigéen ñi léeg-léeg ñu fekk lu baax ci diine ji ñu dévier ko ba du doonati moom tey ku ne xam na ne suukaru koor lu baax la waaye mi ngi yàq sëy mu ngi yàq diggante yi lu tax parce que jigéen ñi ñoo ko commercialisé ñoo ko ci dugal te bokk ci te ba ñuy jàng diine jigéen ñaa ngi ca yañ nekk bi ñu noppee jël yéen jël te mënuñ koo doxal waaw loolu rekk la ndax mbir yi ku jàngul ba noppi di def la nga yàq mooy ëpp bay xaadi ma jaxate kala moom la waxoon sëriñ euh, taalibeem ba allasi ca kër ma kala taaliba di bës ndeke fi muy bës bàyyi xaali daa am ay ay taab taabe di toj rek bàyyi xaali ndeysaan bàyyi xaadi ma jaxate kala allisi àllay tawakkal ca kër makka la daal jooy taalibe bi defee ne métit bi lay jooy mu ne ko jooy ma métit bi de mu ne ko looy jooy mu ne li li la dal sama digganteek yow laay bañ mu diggan dal ma sama digganteek sama borom mu ne ko lii lool mu ne ko bi nga may gës bëgg bi nga may bës dangaa bëggoon lu ma neex ak noflaay waaye li ma ci jële du neexaay du noflaay may bañ nag sunu borom ma koy jaamu loo xam ne maa ngi defe ne baax na ndekkite yoo tali bi moom it daal simboy rongaña moom it daal di xëm mbokk yi wa ummanii dunya wa bil karam bi umm kulthumin wa jannib ni niqam lépp loo xam ne mbugal la walla lu métti tegal fële yàlla na nu sori ñu ngi jégalu nag ñoom eh, sëñ mun eh, sëñ Muntaxa Jataraak ñoom ndeysaan gaa yu baax yooyu sëriñ Sam Bousso ak ñi mel ni ñoom te ti géeju ci yii ñu ciy nab na bi noonu xam naa ñoom daal nu mën a jéggal <laughs> yu ni demee ak sëriñ Bousso ma la nga xam ne mooy al imam tabarakallah mbokk yi roqayatu wala boog fatimatu roqayatu zeynabu umu kulthum xasida gi sax mën nañ cee jaare xam doomi yonent bi jigéen ñi jaajëfal leen mbokk yi ci ànd beeg ñun jaajëfal mbokk yi ci abonné geeg aimé geeg partage geeg participer gi jaajëfal sunu technicien suñu caméraman laay ak shérif bi nga xam ne moo koy jàppale ci liggéey bi euh, jaajëfal ñi nga xam ñooy sunu sponsor yi euh, ku leen lim da nga juum waaye ñu ngi di ànd ak ñun jotaay bi tabarakallahu bu nu yàlla may dund ba àllarba ñu ngi ko ko ñaan dund ba àllarba te weesu ko di ko ñaan mu def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër danañ dellusiwaat ci suñu jotaay bii di tuhfatul mutadarriin bi asmaa'i Eh, al mufaddilin jaajëfal nañ leen lee yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac Building est là pour vous accompagner du début jusqu'à la concrétisation de votre projet. Vous souci. Le groupe MacBuilding vous donne la possibilité de payer en plusieurs échéances et de devenir propriétaire dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez le 77 550 11 19 77 550 11 19. Luc Teigakoy Pare. से दूतों को बाय الحمد لله yéen sama mbokki tapisse yi mbokki cordonnier yi yéen ñi bëgg bagage yu baax yéen ñi di wër matériel bu dëgër am taar lu ngeen ci defar du gaaw a xar seen naqar nee na fër kër gi xéewal waa kër Xaadimu Rasul nekk fii ci Médina rue 25 angle 24 Modou Lay Diop et frère ñoom mën ci jaay bépp jumtukaay bu tapissier bi di soxla wala cordonnier dañuy jaay bépp xeetu toile eskay simili kiwir wëluur LC Mika ak bépp accessoire fauteuil dañuy jaay ay pieds ci ay modèles yu wuute qualité bu dëgër repose sàngal bande dorée bouton cristal appareil agrafe bal agrafe ba ci ay protocole col pompe am nañu ko fàttewuñu benn yoon ay nappe de table yu rafet lool ci qualité yu baax base auto mën ngeen koo amee fii ci kër gi xéwal base pente bépp dimension bu ngeen ci soxla ak qualité bu dëgër mën ngeen ko fekk fii ci kër gi xéwal bokk yi woo leen ñu gaaw ci 76 330 55 10 ngeen laajte du Lay Diop wala 78 382 67 68 ngeen laajte Ibrahima Diop gàngu naa yi jaay lu baax ci njëg yu neex kana ca faax moo di kër gi xéwal waa kër Xaadimu Rasul Médina rue 25 angle 24 kër gi xéwal suñu kër gi ñuy xéwaloo. Youpi Baby une grande bambinerie bambinerie bu mag a mag a mag a mag a mag lépp loo soxla pour sa bébé ah mbokk yi balaa bébé bee juddu nga jënd bu bébé bi juddoo nga jënd bu amee un an ñu defal la affaire bu amee deux ans nu xale bi màggee lépp la ñu am lépp lépp loo soxla même pour yaayu bébé bi ñu ngi nekk rond point Jet d'eau à côté de la station Ola berceau Youpla transat vêtements pour nouveau-né 100 pour cent coton cadeau de naissance paanu njëkk dëkke wala turandoo <laughs> le turandoo bay jënd di ko yóbbu nga xam ne turandoo ba am maanaa valise de maternité pour bébé et maman appelez au 77 243 70 70 77 243 70 70 youpi baby rond-point jet d'eau à côté de la station Ola la bambinerie de référence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 لله الذي أغناني